Je vous prie de regarder du portrait njukkal la lu ñuy delloo kenn ci doomu Sénégal 2020 metti suñu ronkoñ feragul ba léegi 2020 Pape Cheikh Tidiane Ibrahim ñas génn àdduna 2020 Pape Malick Sy génn àdduna 2020 Pape Diouf génn àdduna Bamba génn àdduna 2020 Cheikh Mouhidine Samba Diallo génn àdduna Babacar Touré Gora Ngom kom Bache Kobe Bryant Diego Maradona Chadwick Boseman Dimanche ñu yëgal ñu génnuk àdduna Pape Bouba Diop ci ñeent fukki at ak ñaar la gaynde googu génn àdduna waaye dundam jaar-jaaram lépp mu ngi ko wékkoon ci màndargaal bàkku réewam ak drapoom fu mu taxaw nga gis gaynde gis Sénégal génération 2002 ñuy bokkee ci ñi gën a ràññeeku ci football ci réew mi noonu na leen bu ba Diop bokkee ci doomu Sénégal yi gën a ràññeeku ba tey ñu na jël nay xas ak ay critique ngir teewal drapeau wu réewam Pape Bouba Diop bàyyi fi njaboot gu sew ñeent fukki at ak ñaar ku ko génn ci buntu àdduna nga toll gaynde nga jàmbaar nga xeexal nga sa réew moo tax ñépp ci saw askan delloo la njukkal ci ni ñu ko mënee boo xoolee internet bi sa yaram daw nga war a xam ne ki dund ak discrétion ki dund ak modestie jaarale ko ci tàggat yaram bii di football la mu doon défendre mooy ay couleuru réewam Pape ba Diop génn àdduna terewul ba tey ñu koy fàttaliku xam fa mu jaar ba mu amee juróomi at la tàmbali football ci mbeddu Dakar yi jaar saltige 1994 1996 mu football jaraaf ci noonu lañ ko convoqué équipe nationale junior Pape Bouba Diop bokk ci ndaw ñi gën a ràññeeku Neuchâtel football na ca France waaye balaa booba jaar na ci troisième division foofa ca Vevey Sport jóge fa dem Suisse am jaar-jaar bu kenn mënta nattable 2001 la def carrière bu ràññeeku ca Lens ba 2002 bi ko sénégalais yi di découvrir mu nekk jàmbaar ni El Hadj Ousseynou Diouf wax dëgg la gaynde du dee. Un lion ne meurt jamais, il se repose. Il se repose juste en paix. Garde-nous une place dans l'au-delà, pape. On arrive di ñaan waa Sénégal bu ngeen jullee ngeen defal ko Fatiha ak fukki xul ak benn ngir yàlla jéggal koy bàkkaaram taxare ko ci aljana yi gën a kawe. du ma jooy dama koy ñaanal yàlla bis bu jot dama doon julli waaye damay yokk li ma doon julli di ko ñaanal yàlla kenn masul am lu ko metti si buubu. kenn du papa du yaay du mag du rokk du doom jërëjëf jàmbaar merci pour service rendu à la nation merci Pape Bouba Diop yal na yàlla xare ko ci aljana yi gën a pap Pape Bouba Diop kenn ci doomu Sénégal yi nga xam ne fu mu taxawaan ñu bàkkal ko ñu tëggal ko bàkku réew muy hymne national bu Sénégal Pape Bouba Diop fu mu taxawaan drapeau Sénégal flotté fa même bu daan football ci club boo xoolee loxo ndeyjoor bi gis fa euh, suñu couleuru réew moo di drapeau Sénégal génn na àdduna waaye du tax ñu fàtte ko dañ koy ñukkal à chaque fois di ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxo euh, aljanay firdawsi wéy di nekk këram gu mujj euh, comme l'a di El Hadj Ousseynou Diouf euh, le lion ne meurt jamais il se repose donc Pape repose en paix merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont manifesté leur euh, fierté d'avoir connu ou d'avoir vu les performances de Pape Bouba Diop. Hier sur le net, on dirait que c'était lui et lui seul qui avait toujours existé et qui continue d'exister dans nos cœurs euh, à travers les statuts, à travers nos fils d'actualité. On a vu d'innombrables images de Pape Bouba Diop en essayant de lui rendre un vibrant hommage. Amis téléspectateurs, ceci était une partie où nous avons voulu juste rendre hommage à notre regretté aujourd'hui Pape Bouba Diop lépp luñ ci xamaat ci xibaar dinañ leen ko jébbal ngir